alquran def ci am benn façon pirin traduction boo xam ni moom rek la ko yàlla baaxee ci jamono ci li ma gis ndax dañuy firi alquran di wax naan xaala wax na allahu yàlla nangam nangam di firi baat yi di firi maanaa yi moom nag benn baatu alquran lay jël tas araf yi boo gisee foofu may waxu kaana xaqan alayna nasrul muminin waaw wa way la kaaf ja woy la liif ba way la ñun nga way la loolu lu bees la cheikhul xadim radiallahu anhu ci sama gis-gis bu gàtt ak bu ñàkk solo ci buñ ko dendalee gis ki ñu borom xam-xam yu mag yi moo di ne cofeelam ci yonent bi alayhi salaatu salaam yebul rekk ci bind li nga xam ni tubaab dañ koo baaxe woon bu ñu duggee réewum jàmbur jël seeni turi maam seenu turi eero tudde ko réew yooyu te loolu feeñ na ci suñu capital yi Cheikhu Xadim wane cofeelam ci dëkk yi mu sañ nga gis daaru salaam gis daaru nàngam te benn bu ci nekk turu yàlla la benn bu ci nekk mu ngay wone ci li nga xam ni itam moo di juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent yi nga xam ni attribut la yu jóge ci borom bi subhanahu wa taala daarul Kaffour daaru salaam loolu itam waxuma moo jëkk africanisé waaye moo jëkk islamisé ay quartier islamisé ay village te loola bokk na ci forme bi nga xam ni forme jihad la woon pour moom tey jii fépp foo jaar fu caddo masaana nekk tey jii boo fa demee ñu ngay julli ñu ngay woor Allah ji fa la ëpp ajrati fa la ëpp waaye itam zikkar yi fa la ëpp waaye itam xasaay du sëñ subak ngoon ak daaray kamil yi ak njàng ma kon loolu itam ci méthodologie la bokk boo xam ne xëy na saxaaba yi ñu woon loolu trop ci milieu yu ni mel ci ahmad bamba radiallahu anhu moo tax yàlla xam naa ni yàlla looloo tax yónneewu ñu ay yonent yi ñu ndax am na ñu doon waajal ñoo xam ne garaatu bi tur wa lañ dul yore waaye liggéey yonent yi ci egg foo xam ni maasha allahu mooy tax lislaam nekk fi sax fi te Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu gàcce ngaalaama beneen bi ci des sëñ lay rey xam naa ni waxtu waa ngi bëgg jot moo di ne lislaam toll na tey ci mond bi suñu mbokku arab yépp échec nañu ndax message mënul jàll yàlla baaxe tariqatul murid bokk ci tariqa yi nga xam ni gën nañoo jox espoir l'islam pour mu tas ci àdduna si ndax l'islam li ko lal moo di yaa ayyuha alladina amanu l'islam li ko lal mooy lazina amanu wa amilu saalihaati ngëm ak liggéey te devise Cheikh Ahmad Bamba ba muy tëral ngëm ak liggéey booba yaakaar naa ni bay tool rek a fi nekkoon kenn xalaatul beneen liggéey bu dul booba ndekete yoo liggéey bi mu doon bëgg dëkkmal mooy bu ñu demee ba àdduna jafe parce que boo àdduna jafe foofa la liggéey di nekk wurus tey ji crise yi nga xam ni yàlla tombel na ko ci bay africain yi ñu def ni musiba la du musiba ndax moo waral suñu doomu réew yi génn te doomu réew yi génn ànd ak yeneen doomu réew senegal rek moo am doomu réew yoo xam ni yóbbaale nañu seen lislaam yóbbaale seen tariqa loolu muy liggéey boo xam ni Cheikh Ahmad Bamba yàlla ko ko baaxe ba tey jii témoignage yi am ci bitim réew dañuy naan daal ku fi ñëw benn nga nekk fi ba mu yàgg fàtte sa lislaam waaye daal waa Sénégal rek daal gis nañu ñoom ku fi ñëw waxuma julli gi waxuma woor geeg tabaski ji loolu moom tubaab yi ñoo ko témoignel diaspora bi waaye gis nañ ne dañuy indaale sax seen tariqa muy tijaan ba boo demee tey Europe mu nga ca zawiya muy murit ba kër Sëriñ Tuubaa yaa ngi ne gàññ waaye itam sedd nañ ne xasaayit yaa ngi jib foo xam ni benn tubaab foogee ko foofu ndax ku ñëwoon sama réew ne la du fi jibe ñu dem ba mujj gi nga ñibbi sama réew xasaayit yi fekk si la foofu le ma ni loolu itam yàllaa ko fayee Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax lii mu wayoon ci yonent bi bind ko ci borom bi yàlla du ko yemale ci benn continent foog mu jàll ndax taggul boppam taggul ay maamam taggul ay taalibeem yàlla rek lay tàgg ak yonent bi te nag lislaam yàlla ko def muy lu universel te sëñ Tuubaa bokk na ci ñu ko war a universaliser ci manière am manière bi bokk na ci ay taalibeem ci la waaye taalibe yi fu ñu dem xasaayit yi mënuñu ko bàyyi ginnaaw moom foog mu dem mu neex leen mu naq di leen كر سينتو بايت بفق منكف منخ منقدر نخ القران نوني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يلا نانا كوسون تي ما وان لا دي جارنا كو نك لي مو ديف تي ديغنتي مك بروم كين امول خيل نيار تي ني سون تي بروم فك يلا فاي كو دي يوم مو اوب دولي لي دانك افان بروميير لا تي يلا نكو يلا فايل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حبي وشكري لمن كلي بسارة لون دم دون ذوت من دسر ساره